Euh, bi euh, kaaw bépp bi explosé mooy pétrole bi ci biir Sénégal ci le journaliste Baba Aydara dafoon ay investigation ba def benn documentaire euh, di wax ci cas boobu ba génnee relation bi Frank Timis am ak Ferme Teranga ndax ne yaakaar naa ne yàggu rek déggoon nañu ka nga xam ne moom mooy joxe kàddu ca ca ca palais toogoon ci benn télévision euh, ca ca ca tugal ne Aliou Sall maanaam rakku président moom jotul jotul xaalis waaye li mu jotoon mooy consultance ci wàllu agriculture donc ñun def mel na ñu ngi doog a xam ne loolu moo doon wax lu am la donc loolu mu jot ndeke foofu lañ ko dugaloon ngir am suuf soosu nga xam ne moom moo nekk jaayal tolloog ñaar fukki junni hectare nga xamné tay tey euh, gis nañ ci ay information comme quoi que né ki nga xamné mom moy mooy Franck Timis mu ne am ci titre foncier mu nekk nag lu ñu yéemee sénégalais lambda bi mënul am titre foncier ku digg doomu bi munul am titre foncier waaye Franck Timis ba nga xam ne Roumanie la jóge am titre foncier si ñaar fukki junni hectare ci suufu Sénégal tey mi ngi nekk ci city bu Londres ci ay marché di wut ay partenaires ya nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale mu xool na mu exploiter suuf soosu te suuf soosu mi ngi tey ci ay communes yi nga xam ne daanaka seen suuf jeex na boo xoolee ronq seen suuf jeex na ñiic daanaka li ñu dese bëriwul nguur mën a seetaane ba ñu jox ñaar fukki junni hectare wala ñaar fukki junni hectare ak juróom ab ab ab étranger pour après moom mu dem xooli nan la mën a amee ay bailleur nga loolu dafa nekk lu yéeme. donc euh, comme que ñu ngi joog a jot information ci info yi dinañ ko gën a vérifier gën ko xóotalaat su ko defee nag ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy ñun ñooy communauté yi gën a ñu taxaw jàkkaarloo ak moom comme ni ñu defoon ak italien ñu xam ne suuf soosu euh, caaxaan du ko bay. bu fekkee itali italien ak seen alal ju bëri ñoo fa dem bàyyi ka keneen ñëwaat bàyyi ko keneen dina ko bàyyiwaat ndax ñun ak sénégalais yi ñoom ñoo ci ànd xeex ak ñoom bu fekkee ne nag le président Macky Sall bëgg na jàmm na waxtaan ak uh, ki nga xam ne moom Franck Timis waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy nyom bu fekkee ne ñoo moom suuf wala ñoo ci am titre foncier nañ ko delloo ñi nga xam ne ñoom communauté